Put the yarn on, Thiaw mooy noonu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen kontaane bu baax baax di amaat mbégte toogaat ak yéen ni leen li nga xamante ne mooy seen émission si lutte motivation tey nag ñu seet si champion seet plateau ñu fi nga xamante mooy Médina fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante mooy combat bi ba si diggante ak ki nga xamante ne mooy Balla 2 dama koy bàyyi mu nuyu gën bu ko defee ñu wéyal waxtaan bi le grand ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si di yërëm suma yaay di yërëm suma yaay di sant sam papa di si teg di naan xat faaxa kabala xat baax sa fadala fa duuru wala war su jaay di bëggee suma xama di bëggee sama dëkkuwaay bi fu ma nekk xama <laughs> saa yu weeree daal ma sax maa ngi gërëm daal fu ma fekk muy fas ak fu ma juddoo ñaacokeer Dakar palato bi yëpp ah, di nuyu sama samay sëriñ ñu mënoon ñaanal ci combat bi di nuyu sëñ Mor Fall sama papa Serigne Fall sama papa Serigne Fall maa ngi koy nuyu bu baax. di nuyu sëñ Bas la solution ah moo joon maa ngi koy jaar tamit xam nga maam seeni borom borom xam-xam bu wóor bi di nuyu Paa bu ah, ak jabaram di nuyu ñëpp képp ku ma doon ñaanal sëñ Ibrahima sëñ Malick am borom Kër masaar ku baax ndeysaan di nuyu ñëpp di nuyu fu maire yi nekk sama koñ sama waa Gale bàyyi ma kenn xale yu ndaw yi moominu ndaw yi xam ne victoire bi seen na la maa ñëpp di nuyu sama mbokk yi sama yaay ñoom tati tati moo ma yar maa ngi koy nuyu bu baax sama maam Lamine Ndiaye xam nga sama famille papa tamit sama bàjjee nii waa kokki maa leen di bu baax a baax a baax ñoom maman Dieng et cetera xam nga ñëpp waaw. am na solo ginnaaw bi nga nuyoo ba pare la grand champion plateau sa combat bi nga xamante ni bëri nga ko ak te 2 tey ji ci loo nekk. waaw voilà mu ngi ci lu mu war a nekk rek. waaw nee man damaa sangu rek waaye nelawuma waaw damaa sangu waaye ma man maa ngi nekkaat si lu war a nekk jàpp ne defaguma dara je suis loin d'être arrivé waaw xam nga dese na ma lu bëri daal parce que dama xëyaat si lënd bi dama entraînement nekkaat si lu nekk instant ngi nii sama job xam nga nekk si lu war a nekk daal di xaaraat leneen incha allah te am nañ yaakaar leen déggaat sama combat bu neexee yàlla. mais Plateau gars yi ne da nga xaw mystique de trop. te combat bi paase feeñ na non bàyyi nañ bàyyi yooyu sant yàlla. di sant ñu may ñaan di sant sama yaay ku sa yaay di jàmbaar doo daw xare sax yu ma sa sama yaay daf ma wax. du la waxoon non bëgg ma wayaat quoi. non ah, ah. maa ngi sëñ Bamba. Eh. bëgg ma wayaat waaw maire bi daf ma dama déggante moom téléphone. Hmm. di nuyaale sama yaay Adama Bouya ak sama chéri Abi maa ngi koy nuyu bu baax. waaw maa ngi sëriñ Touba. No, mais dafa jam, wow, jàmb waaw ku di Jambar, wow, Jambar, Jambar, plateau de ya. Jambar, enggak, oh, ya, ku sa di Jambar, Do da okare. jégi-jégi ne mereu nyano, ñaaw nyano, réew pala du la taxa ñaaw champion ngay doon ne du la taxa ñaaw yaa ngi dégg waaw dama xaw a ngéwéle la grand champion plateau nee naa mu nekk xale di def ay preuve ci làmb plateau yàgg Bada 2 ngeen bëree. Mhm. yàlla may la ndam. ñëwal ñu ci combat bi ak nan nga ko bëree. waaw nga ko bëree si jom lu ma la wax rek bëree ko si jom si fit ak si xam nga si détermination waaw am fu ma bëgg a yegg. waaw man kii du ma xañ fu du ma xañ sama wërsëgu yaay parce que sama yaay lu ma ko war a teral si làmb dafa bëri lu ma la waxoon rek adversaire bu taxaw sama kanam loolu laa lay jàpp. waaw ah, parce que boy bi élection nombre de bataille mom day wax rek yee nitu bataille la espagnol moy wax lolu xam nga day wax rek. te ma neul combat mo la laajoon lolu combat bi deug nga combat mën nañ ko jaay. Ah. mais nga la way soy jaay combat waxal lo mën. xam nga ngay wax di jaay sa combat mu lenn ni ku ngay beurel mo la mën mom gan après ni muy def ni ra ngay mujj jaay tok fu ne dalu ay eh, ja yaakaar naa combat bi dina gaaw. barki alcorane suma sago sama sago bop sax dafa beuri su nekkon man kasse may beure non du yegg sax fu mu yegg noonu. ñu gis nga ñoo taxaw di ko déglu. waaw di nuyu sëñ Fall ah sëñ Fall maa ngi koy nuyu bu baax du ñaan du dara mais conseil la ma ci jox palaa soo teeyee kenn du la daan di ko nuyu bu baax billaay wallaay taalaay la laajoon sama gars yëpp nee ma palaa teeyal parce que xam nañ ma. man gaynde laa billaay wallaay taalaay. nga mel ni ku ko ragal te ragaloo. non parce que man on me tue mais on ne me déshonore pas ah nangu naa ku ma rey waaye nangu jomm naa ku ma toroxal. loolu laa indi. Mhm. bu ngeen jàppante yéen ñaar. bu ma ne ko fekk nga golo ci kaw ci kaw garab barki alxuraan daf ma door ku ma kaw a dëbb mu daw di ma song ma cabaxal ko mu bañ ma remplacer ko yóbbu ko mbot. Mhm, lamba yu jeex. nga daan ko. ma daan ko fu ma jëm. waaw fu ma jëm ñëpp xam nañ ko. xalil man xaw ma ko. xalil barki Serigne Touba ñëpp xam nañ fu ma jëm te maa ngi koy xaar bu mu bëree ba pare. ni ngam ni taxawan na fii nee na jour ba ma daan te boo xam boobu daf ma jig de xam moom yàq dèjà du ma bëgg sax di wax ci moom buul kooku la sax laay wax du ma wax turam di ko mooy tàppal nga rek non non bëgguma ci combat moo tax bëgguma ko wax barke alxuraanu karim billaay wallaay taalaay moom xama rek dama dañ ma daan Laurent daf ma daan sama premier combat défaite bi métti wu ma de xam nga kañ ci combat bu ma bu sita ne bu bu sita nga daan si signature boobu maa ngi daf ma métti xol lool loolu en moo ko jàppal la quoi toujours ah, muy wax Laurent ne ko. maa ngi woon instant toog Ibamar seen signature bi barke Serigne Touba man en boobu laa ko jàppal. mais à chaque fois ñu gis ne boo bëree ba pare ba daan benn cible la ngay am muy Bou Siteu. mu ngi wiiri rek. mais ndaamal daaru xam na ne maa ngi ndaari toog di ko xaar. wiiri maa ngi nda te bis bu dof dof loo ba ma ko ci làmb dina bëgg a bëre ak man mu togo. moom bu. yàq na sept cas daan te yàqu démb la. élection yi législative yi bu xale la de. man xale yow bu am ay jabar ay doom ñun amuñu dara vierge piso xamuñu tus waaw yàq waaw moom jamonoy gelawaar la lu ma la waxoon fii rek ba gelawaar di xas gars yi naa leen as góor ku koy jox lu muy dundee bu yàggee nga soppi ko mala moo taxawoon ci wet gi noonu. kon compo leen mais tey bu am combat rek nga xam ne mënatul jël beneen bër moo tax ngay profité di wax bu bu fekkoon tey ji bu amul combat yëpp doo ko wax. man soxla wu ma ko sama gars yi ñoo ko soxla. loolu soxla woo bu di champion. man bu ma mën la daan ko raw bu bu man daan man daan ko du tax ma zibale di daw. balaa doo soo mën nga daan bu. Khalil yow ah, bu. man c'est comment moom doo koy woowee. daa ci combat quoi man lii sax lu may def nii sax waruma. Ah. xëy na xam nga xol bi mooy wax. dëgg la mais jàmbaar gu non bu nga soxla yow. du moom kase man keneen leneen sama yoon dama koy topp. mais dañoo gis sa combat yu yu bëri boo daanee ba pare à chaque fois benn cible ngay am muy Bou Siteu. dafa maa dimbali sama wàllu làmb heure ma ko xalaatee dama fay bàyyi bakkan bi heure ma ni kii jour mooy bëre dama fay bàyyi bakkan moom dafa ma dimbali de barki ndaamal daaru côté boobu moom dama ko ciy sant moo tax heure daanoo xol bi wax lu ma war a jooy wala lu a yàlla baax na ko le temps est le meilleur juge. buur buur dafa soxor de. <laughs> man noo tengo miedo barki alxuraan je suis pas peur. borom polotoy. bi borom lan. waaw man Jamalien ma Jamalien ni nii naa ko yóbbu Jalal yóbbu ko Jamal barki Serigne Touba Mbaye. booy yëpp ay fansam lañ. booy yëpp ay fansam lañ non booy booy dañ ko rus rek xam nga yàqu démb la tamit grand père la. dina ci dóor mbër ba mu dee. waaw man dama man damaa judd si li moom màggee si Dakar kenn du laajte na damaa foro bàyyi man lekk ceebu dëj laay gën a firee sax ka ma lekk ceebu ngénte lépp lekk ceebu dëj laay gën a firee ka ma lekk ceebu ngénte dëj lu nit mënul mucc la ngénte nak chance la rek dëgg yee du ma bëgg sax di wax si am na yeneen adversaire yoo xam ne tey amaana ku ma làmb booleel la ñu bëri mais moom yàgg yàgg dafa nekk ci combat yàlla ko suñu borom defal jàmm ci combat am si am moo xam mais yàlla ko suñu jàmm amiin mais tey jii nii euh,